salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi image yi ngeen di jàkkaar lool image yu daw yaram yi image yu yéeme yi bu ñu leen ne ci armée de Toubal ya kenn du ko gëm te pourtant image yi ngeen di jàkkaar lool mooy armée yi nekk wetu jumaa moo nekk nii ngeen ko gis ndox mi fees fa del am ay bàmmeel yoo xam sax ndox mi wan leen armée yi nga xamante ne bii bu tedd kee ko sanc lu nga xamante ne bii ñu baax ñi ëpp ci ñu baax ñi fi tëdd gis ngeen ni mel mu mel ne nag Touba boo waxee ñu ne kii di wax amul taalibe ci li mu wax lu tax mu koy wax waaye Touba bu ñu waxee dëgg rek mooy Touba dafa ñàkk ay taxaw Touba mosquée surtout amul ay taxaw rawatina nag amel yi nga xamante ni bii ñu baax ñëpp fi lañ nekk gis ngeen ni mu mel fees dell ak ndox ma jàpp ne nag ay yenn yi boo koy def day fekk nag nga def li a farata fi mu nekk Touba bépp liggéey boo xam ne ñu ngi ko fay def muy muy muy muy muy muy mu jëm askan wi jàpp nañ ne li a farata mooy ñu respecté Touba mosquée jox Touba mosquée gëddam defaraat Touba mosquée ndax Touba kat buñ koy wax Touba mosquée tax waaw am na ñoo xam ne dañuy ci jumaa ji la ñuy dugg génn demaat seen yoon ci bi ñuy dugg ci dëkk bi ba ñuy génne duñ fi gis lenn loo xamante ne bii lu jaar yoon la ñu war cee jóg yaakaar ne nag lépp loo xam ne ko ngi koy liggéey yu yu demee nii amul lu ko fa gën farata ñu saafara ko ci na mu gën a gaawee rawatina nag napp bi nga xamee ni bii mi ngi menacé Touba dañoo jàpp ne nag lépp loo xam ne ci nga koy def muy farata yaakaar naa ab dëkkuwaay dara gënu ko farata ci dëkkuwaayu nit ñi am na lu koy menacé loo xamante ne bii liy raam ci njëg bi la jëm ci kenn waxu ci li ñuy wax nag jàpp nañ ne faj loolu saafara loolu moo ëpp fuuf njariñ leneen luñ fa mën a def. suñu paree nag ci dëkkuwaay ni ñuy door a jublu ci li ñuy war a jublu waaye lii daal lu mat a saafara la ci dëkku sel bii di Touba nga xam ne nii fii à deux pas de la mosquée la armeel yu tedd yii nga xamante ni bii ku tedd ku nekk ngi fi tedd armeel yi mel nii lii lu ñaawal loo xam ne war nañ koo saafara ñu waxee nag ñoo ñoo ñàkku taal bi waaye ñun nag du ñu ay bàyyi ma ay nit lañ te suñu borom sax buy wax borom xel waxal